Euh, euh, lu mel na gàmmu bu ñëwee nii dafay am ñoo xam ne dañ ciy bëgg profité di jaay produit yoo xam ne nii mën naa indi ay problème wér-gu-yaram loolu nag wax dëgg yàlla ñu ngi def ay contrôle nangu njaay yëpp yi nga xam ne nii daal gis nañ ne date bi ko war a lekk jeex na wala njaay mi ci boppam it ba baaxatul baax koo xam ne kenn war na koo jaay loolu tam ñuy def ak liggéey am na yeneen liggéey am solo tam muy dañuy dugg ci biir kër yi di yee nit ñi di waxtaan ak ñoom pour que ñuy traité ndox mi nga xam ne nii dañ koy stocké pour pèlerin yi loolu tamit am na solo ak it ñu faral lut lool ci raxas seen loxo yi ci saabu ndox ak saabu ndax loolu gis nañ ne feebar yu bare bare bëri bëri mën na ko fànq am na yeneen contrôle yoo xam ne nag dañ koy def mu jëm ci camion de vidange yi yi nga xam ne nii ñoon ñooy ñëw bu gàmmu gi ñëwee ndax nii tamit dañu bëgg a mën a dalal seeni gan vidange yooyu tamit dañu bëgg ñu ñu koy yóbbu ci benn barab boo xam ne rek moom lañ leen wax ne waruñu koo wees du yóbbu faneen ku ko fa weesu nag buñ la buñ buñ buñ yow danañ la jàpp teg la li nga xam ne moom la yoon wax waaw produit nañ ay jàpp nañ ay produit ndax fan yi yëpp bi nga xamee ne liggéeyu traitement yi ci kër jeex na liggéey boobu lañuy def contrôle boobu ba fi mu ne li ñu jàppoon rek boo estimer un peu li nga xam ne euh, valeur bi ëpp na fukki junni ak ñaar waaye liggéey boobu day continuer marché yeeg euh, épicerie yeeg select yeeg moo xam fu mën a doon daal am na équipe yu fa dem yoo xam ne di saytu njaay yi ni indi pour ñu mën a wóor ne njaay la yoo xam ni bu ko nit ñi jëlee yóbbu ko seen kër yi du leen indil benn jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram jërë ngeen jëf